Say sayla al Qaeda. Say sayla Moy chuma Moy chuma ey eh. Xamal ni say sayla Magar mechi Qaeda. Say sayla Moy chuma Moy chuma ey eh. Alors oui, you know Ça va bien Alhamdulillah

dégg nga voilà sama côté moom doo am dara lu la métti amul problème amul ok ok waaw léegi léegi incha allah boy nan tey nga nag yow <laughs> ay saay saay ok léegi léegi. damay jaay wuyu rek <laughs> man nga fi fekk doom day wax ma indi déedéet ak doxal. ay saay la. ግን ይስአልከይላ ሳይሳይላ ሞይቱማ moytuma eh xamal ni saay saay laa maa gën a. wuy ma kaay maa ngi lay wëccu kon bi quoi xanaa doo génn yow li ma sa problème léegi génn na di xam dëkk bi nu mu demee moom ma loolu xanaa doo yàgg mu wutal ko mu wutal ko liggéey quoi waaw xanaa yow liggéeyoo wala ah waaw ci yow ku nekk si quoi bi dafa entreprise dafay def recrutement te xanaa ne jàngoo. mais te liggéey la laa soxla yow baa rek ngay soxla. daaw la. waaw maa dañ laa damay génn guddi ba liggéeykat guddi la. non loolu c'est que li moo ne yaa. dafa doy sax dafa doy sax waxtu moo doy. déglu ma rek waxtu moo doy. li moo yaa déglu ma waxtu moo doy. man maa liggéey yow mosoo dugg ci lu baax xam nga sax lu baax. wóor na la banaa banaam damay tudd ma liggéey may liggéey. yàq sama dere bokkuma dégg nga déglu ma déglu ma. dama la dama la jàppale donc. liggéey man maa bëgg mun naa utal sama bopp mu succès loolu lu ma bëgg nga mel ni yow changé laa bëgg ni ma mel du pour yow du pour moom xam nga bëgg nga réglé dégg nga changé nga wàññi li nga mel nekkal fi solo ko génn nga xamul looy Oui. Encore, quand on Oui, André. Ça, va, ça va bien. Oui, bien. Connais rien, un truc plus. On va recevoir, on va recevoir. Ok. Pour un secret, tu fais comme ça Non, maman va libérer. Ah, ok, c'est bon. Maman libérer, ouais. D'ailleurs, même, dama la bëggoon libéré waale ah. ok ok voilà dama la bëggoon dama bëgg génn jënd foofu ñëwaat. non amul problème mun nga mun nga ñibbi waale. ah ok kon ça va ba ba ba lundi nga ñëw. incha allah incha allah aussi xoolal. bul fàtte couloir bi ku fi traîner ñuy ñuy liggéey foofu ñun yëpp waxla min kii quoi ok ok on problème voilà d' accord y a pas de souci bugguma ko ma kii quoi dama am lu ma war a régler toujours toujours ok merci hein voilà bon pare que booy yegg si nañ ah booy xamuñu préparé nag vite fait si tey lay tey la entreprise bi nag doo faale tey nag lii déglu ma sàmm naa ko Kumba oui ñëwal ça va Souley. ça va bien. ça va bien. yaa ngi ci jàmm. maa waaw. ça va. ça va bien. ma ma boole woon ak yow. waaw waaw Ndiaga Ndiaga. effectivement léegi nii déggante ma wax quoi. mais conférence boobu ma bàyyi la nga expliqué. waaw ok man dama dama tasante woon ak moom. daal ni ko dama bëgg liggéey. comme que man sama situation demeewul noonu. te suñu famille mooy loolu demeewul noonu xam nga rek. damaa bëggoon fu ma jàppoon daa ko am fu ma suturloo léegi mu expliqué ma ne ma na benn entreprise bu nekk fii benn DG bu day offre ay emploi yooyu noonu léegi ma ne ko boole ma ak moom léegi si la ma neewee joxee sa numéro nag mu ne ma naa ñëw su ma ñëwee ci yow. dëgg la la bon li nga def sax mooy noonu ah dem ut liggéey nga liggéey xam nga dëkk bi moom la nag de liggéey dafa manqué de. Mhm. fu ñu la war a jox liggéey foo ko gis jàppal ba mu dëgër. Mhm. yaa ngi dégg ah noonu la demee nag déggante léegi mu wax ma ni kumbis xam nga affaire yooyu noonu moo tax ma wala wala sa tur sax. parce ma wax bon waaw léegi offre bi moom mi ngi fi offre bi mi ngi fi xam entreprise bi des na ay place comprendre nga bëgg naa recruter non non mais du ma nag du ma recruter n'importe qui macha allah yow ah tukulóor nga. waaw rafet nga yow mii tukulóor nag dañoo rafet nag ah trop macha allah mais bon benn yi waxtaan rek proposition la c' a c' a accepté ou à laisser. yaa ngi dégg. voilà loolu doo jub ma xool la ah. xam na si kan ala liggéey ut liggéey ak jub yoo wax ma liggéey bi may proposé rek ma xam. Mm-hmm. mais liggéey bi daa ànd ak jub. jub ah oui. franchement parlé ma man ma mënumaa jub ma toog franchement. comme rek liggéey bëggoo jub jub bi moo la nar a jël de soxna bi. non wax ma rek bu ma comme central de Thiès yi tey mais bon loolu ci foofu damay dem juraatoo bi quoi ma wax la. Mhm. liggéey bëgg naa la ko jox ak li mu expliqué am naa envie jël la quoi. da mhm. caa comprendre mais dama am nu may doxee am na ay chartes gis nga ba nga dugg si entreprise bi gisoo fi picc buy naaw sax gisoo ko. Mhm. voilà mais yow xam nga foog moo expliqué la quoi naa genre kii yooyu hmm? <laughs> waaw loolu reetaan tuuti ma xool yow sànq léegi rek maa ñàngal nag. dégg nga maa wax sama proposition ma xam fu ma féete moo gën ngay wut ay reetaan ak lii. loolu nga rek li may doy. waaw la man yow ñu am fu ñuy jaar comprendre ci gars yi fu ñuy jaar rek mooy yow xam nga li ma la wax jigéen ñi fu ñuy jigéen eh, jom ma. arrête bul yeggali sax yow loo yaakaar. lan laa yaakaar. da ngaa jàpp ni man genre ñooñu laa. yan genre. nekkuma genre jigéen ñooñu. damaa terminé. eh xam naa fi nga jëm. faral bul yeggali. fu ma yegg. yéen seen genre yéen a yàq deru jigéen. ah bon kuy ut liggéey ngeen bëgg koo profito bu deema rek doo am koo profito Mana ne nga tëj ay imbécile ngeen dama ne man ay imbécile ngeen yéen du man maa la wër liggéey jeex na tàq doy na sëkk yow xamoo ma sax dem maa ngi ñëw dinañ yàgg a toog seen kër di bala di minas parce que ay jafe comme daa koy wax man dayoo ma toog sax li mu andi genre nga xam boobu de mu dama ko gis rek xam ne ko fi dëkku Dakar du koy tàmm miinu fi moo tax yuuxu na ma fi def na maa ngi dem maa ngi ñëw mais dara mais moom ah de toute façon jabar tooñ na ma quoi ay dof rek la ma àndi tey xaw ma nag beneen booy bi moom mooy loolu xam nga ko sax oui monsieur. oui Eva ça va. ça va bien. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla. tranquille. tranquille. Ndiaga hmm? ah Ndiaga moo ñu boole woon waaw. merci woo na ma quoi avant ngay ñëw. effectivement. moo boole yow quoi. waaw et puis bon offre la offre emploi la voilà. Ah, ma déglu la yow nga woon wax nga. Ah, jaga sama xarit la. Ah. ma rase woon moom. di chercher emploi. mu ne ma am na benn DG am te xaritam la aussi. bu baax sax ko posé ay emploi. Mm-hmm. mu ne ko ah man de soxla naa emploi boobu noonu loolu moo tax ma ñëw fii tey. bon effectivement avant bi avant bi ngay ñëw woo na ma wax na ma Eva affaire noonu. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. mais bon juste que euh, am naa fi emploi bi nag. place yi bëri na ci entreprise bi xam nga naa la recruter bëgg naa la jël liggéey sam pourquoi sa saa yi tamit dama leen soxla sama entreprise sans xale yu mel ni yow dañuy ah gis nga dangaa dégg sax yow dañuy mën a liggéey maa ngi yow damay damay mën tranquille c'est que du di xëy di romb ay góor rek tamit ci ah? na expliqué ah mm-hmm. kon ja. mais ah foofu toj. loolu dégg naa. waaw mais noonu lay demee ah pour pour pour kii balaa ñuy yàggal kay jege ma waay jege ma kay waay jege ma. waaw doo ko liggéey waay. tamit ah man na aywa soxor nga de ah bu aywa bu ma catuwaay bu ma catuwaay bu ma catuwaay aywa <laughs> soxor. mais dama bëggoon xam moom liggéey bi moom. yow amoon naa bu yàgg. tamit yow. kon naa ko kale. oh kale. boo ko awaatee kale. te waaw soxal na ji xam nga dama soxal. allo monsieur l'agent. waaw foo on est presque arrivé ñoo ngi ñëw. waaw maa ngi leen di leen xaar. سايله مغنيس الكيده سايله مغنيس الكيده ساي سايله مويتوما مويتوما اي خمال دي ساي سايله مغنمتي الكيده ساي سايله مويتوما waaw mais vous entrez comme ça dans mon bureau. noppi la ñu wax teetuwaa. teetuwaa la. yow da ngay def sama bureau naa ma teetuwaa. yow lii bureau la. sëñ bi tey rek. bureau wax da nga fi nekk ci biir ay génnal. waaw. mais ka ka ka ka jëlal sa saak ci biir. waaw man dama bëgg a toog wala la ban ñi nga yow eh. sëñ bi noppi la teetuwaa. xam nga ki nga wax. teetuwaa laa la wax. teetuwaa. non la police. police. amul police de c'est la police laa la wax. sëñ bi yow. yow mooy foog yow rek nga andi fi ñun. amul foo ne yow li fi nekk lépp xam nañ ko bu yaboo nga noppi nag. mais sëñ toogal ma expliqué. non non amul expliqué soo ma la expliqué da ngay bàyyi bañ àgg fee nga doog ko expliqué. mais toogal ma expliqué la ah embarqué la. wuy ma yow ma jaar ak yow. non non loolu jubal jubal. sëñ bi dafa ndànk eh. jubal jubal. man ma fay sama eh, machine. ay nettoie noppi allez jagaan. say la maa gën a yées alkayda say say la moytu ma moytu ma eh. xamal ni saay saay laa maa gën a metti alkayda saay saay laa moytu ma